bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin walsalaatu walsalaamu ala sayidi almursalina sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabiina lahum bi ihsaan ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkale ci weeru koor gi man la imaam Seydou Nourou taal bu doomu Ceerno Muntaqa Tall imaamu ratib juma Cheikh Omar Foutiyu radiyallahu taala anhu ñëw ngeen fii nag si jumaa ji laa nekk fii ngeen ma fekk si jumaa ji laa nekk photo bi photo photo bi bu ñëwee man fekk na ma fa photo bi Serigne Mansour borom daara ji moo ko indil Ceerno Muntaqa bi mu ko indee en 92 93 boor yooyu laal la bi mu ko indee mu ne Thierno indil naa la sa photo maam Thierno ne kontaan na si ne ko jërëjëf mais Thierno bi mu demee ba pare Thierno ne ma indi photo bi ma indi photo bi mu ne ma xoolal photo bi kii du Cheikh ma ne ko ah lu tax mu ne ma Cheikh Omar mos nga ko gis mu takk Cheikh Omar mu ne ma Cheikh Omar sooy wax da ngay wax ak ku xam ku am ku xam mu ne Cheikh Omar est-ce que mos na teggi tànkam si sunna ma ne ko yaakaaruma ko mu ne ma kii ñaari jaaro la sol góor warul takk ñaari jaaro kooku yonent bi moo ko tere sallallahu alayhi wa kon nag Cheikh Umar dimension bu mu toll mu takk ñaari jaaro kooku rek dàq naa loolu man man sam bopp la ma ne jaamu yàlla mu ne ma jaamu yàlla yuy gis Cheikh Umar ba léegi du mbii côté lañ koy gis boobu xaw ma moom ko mu nu mu tudd donc mu ne ma jëlal photo bi nga teg ko fële donc teraanga la rek nit ki may wax nag photo boobu ku ko yor mun nga si barkeelu ndax nee nañ wa anta ya muridu wala bi maamati laka tafayta sirta bihi muhammada soo jëlee kenn nga ne kii mooy yonent bi nga jàpp yow sa xol jàpp ne mooy yonent bi amun na na nekkal yonent bi di nga jëriñoo li ngay jëriñoo si yonent bi du ko tere mu nekk Samba Ndiaye bi yow tam du tere nga jëriñoo si sëriñ si si yonent bi sëriñ Samba Ndiaye gisul Cheikh Omar sëriñ Samba Ndiaye doomu Cheikh Omar la nekkaloon ku ñuy wax Amadou Cheikh Amadou Cheikhou mooy lomp placé woon Cheikh Omar après moom mooy moom la ñu ci silaama bi ñu fi indi woon bi si doomam lañ ko jëlee woon kooku mooy Amadou Cheikhou taalibeem la woon moom ñoo àndoon moom Samba Ndiaye bi njabootam ñu ngi ñu ngi Bandiagare ba tey donc loolu moo doon relation mais moom gisantewul ak Cheikh Omar Amadou la gisanteel moom la nekkaloon doomu Cheikh Omar Thierno Mountaga téeréem bi Jawaahir wa Durar xaw ma ndax yor naa ko fi Thierno mu ngi si def photoom mais Thierno xam na ne ci kii Amadou Cheikhou la comme amuñu photo Cheikh Omar nag am na amuñu photo Cheikh Omar ñu jël Amadou def ko sa doom sa doom la sa doom yow la Amadou Cheikhou boobu soo ñëwee si suñuy ziyaara ba tey ba ba ba yowmal qiyaamat photo Amadou bi la ñuy exposé. Cheikh Omarul Fouti jàngane la nit euh, lan nga war a jëkk def soo demee ba ràññi ba am xel mooy nanga topp sa borom loolu moo jiitu. nit soo jiitalee sa borom si lépp rek yàlla fekk la si yëpp yonent bi nee nañ ko fa ida faraxta fansab wa ila rabbika farxab soo paree li nga doon def soo dawee si sa àdduna jëlal quelques minutes wala quelques heures nga consacré ko yàlla Cheikh Oumar nag dundam yëpp daf ko jox yàlla te yar na ay njaboot loolu moo doon dundam nit nag soo nekkee nit suñu borom dafa ne wa ma walin sa wal insa illa liya'buduni yow mii wala man mii amul lu ñu sàkkee lu dul ñu jaamu yàlla mais yàlla xam na ne suñu joxoon rek ñun nag nañ ko jaamu rek mu nekk suñu mission am na leneen lu ñu war mu ne leen may naa leen moment yooyu ngeen def ko mais toujours bu leen fàtte seen borom yonent bi loolu lañ ko fi ida ta soo paree daw si àdduna jëlal sa moment nga consacré ko yàlla ku nekk ak yàlla lépp fekk si la ku nekkul ak yàlla nag di nga daw ba sonn doo jot dara donc Cheikh Omar loolu la xam mu wuti yàlla bàyyi àdduna àdduna fekk si ko loolu mooy loolu mooy loolu na doy na si junj si jeunesse bi jeunesse bi Cheikh mar ku fonkoon waajuram la jeunesse bi nit soo mun soo buggee am yàlla il faut nga fonk say waajur soo fonkul say waajur doo am dara ridallahi fii ridal walidayni wa suxtullahi fii suxtil walidayni merub ngërëmalu yàlla mu ngi nekk si ngërëmalu ay waajur merub yàlla mu ngi nekk si merub ay waajur suñu borom li mu wax loolu ku ko def doo juum fasalu ahla dikri in kuntum laa taalamuun laaj leen ñi xam su ngeen xamul soo buggee bind si nit nga bugg a wax si nit laajal ñu ko ñu ko jege wala ñu ko xam soo laajee ñu ko xam ñu wax leen Ceerno Muntaxa bind na téere bu ñuy wax aljawaahir wa durar téere boobu amul lu mu bàyyi Cheikh Omar mu ngi ko commencé en 1962 mu ngi jeex 2005 boobu la jeex de toutes les façons man kam maa ngi euh, ñaax di soññ képp ku bugg a bind si Cheikh mar euh, du publicité cee téere Thierno déedéet Thierno ëpp na publicité téere boo xamee ne en 1962 lañ ko commencé si ndigalu Thierno Seydou Nour jëlee na si Cheikh Oumar avant muy ñëw ba Cheikh Oumar fu mu duggee dege mbere ba ñi ko remplacer ginnaawam muy Amadou Cheikhou ba après Amadou Cheikhou ko Tidjani Alpha Amadou ti ginnaaw afa tilfa ti Amadou Cheikhou Bassirou Cheikh Omar ñooñu yëpp ba mu continuer gis nga Nigéria soo fa demee ba tey seen dynastie boobu mu ngi dem ñoom ba tey ñu ngi nekk si 19e ku ku dem yëpp ñu jël keneen teg la donc foofu donc lépp mu ngi si téere boobu donc Thierno bàyyiwu si dara soo buggee bind nag wutal même so du arabe ko bind ñu ngi ñaan ñu traduire ko mais soo buggee bind ñëwal ci koo xamee ne jàngana arab nga ne ko wax ma lu nekk ci ceer téere ceerno histoire nag moom dafay wuute ku nekk ni mu ko xamee mais moom bi mu koy def fidèlement du si wax dara lu dul fekk dem na ba si bërëb boobu suñ ko waxee dingiraay mu dem ba ci waa dingiraay laaj leen suñ ko waxee banjagara mu dem ba ci waa banjagara suñ ko waxee ñooro mu dem ba ñooro laaj suñ dem wax koy ségu man ànd naa ak moom yoon yu bëri ñuy dem ci yu mel noonu. foto Cheikh Omar bi ñun ñu ngi ko yor suñu kër c'est officiel mais. Euh, Samba njaay bi man lu tax ma waxuma si woon xam naa ne rek du Cheikh Omar na nee ma du seexu mar mais aw ma si xaw ma nu mu tudd xaw ma kan la xaw ma ñan la ba may laajte di laajte di laajte jaral na ma ba dem ba foofu laajte njabootam ñu ngi foofu. am photo Cheikh mar ak ñàkk am photo Cheikh mar gëm ko moo gën ëpp solo ndax foto dafa mos dama mos a ñëw si sama su si wetu ceer Thierno Mountaga ma toog. am ku jël benn dàng temps yooyu photo moo xew ku nekk day jël sa ñam taf ci sa dënn bi mu ñëwee tef sa sa Thierno Mountakha si dëndam Thierno na ko xool ko ba pare ne ko yow man nag yaakaaroon nag sama digganteeg yow du photo ci sa biir xol lay nekk donc loolu ëpp solo.